mbokki Leewtoo ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax fi ñu leen daan nuyoo tey nag dañoo ñëwaat rek ci beneen numéro ci làmb ji xam nga Leewtoo ci lu muy dox mooy ci lépp li nga xam ne dafa yitte làmb tey ñu ànd ak yàgg maar ki nga xam ne mooy Momo comme ni ma koy wax rek suñu chauffeur bi nga xam ne dañ koy ñaanal jàmm waaye ñaanal mbokki Leewtoo yépp jàmm euh, Mansour stagiaire bi ñu ngi koy nuyu baax suñu fils la di ko ñaanal mu mag ak jàmm waaye yàgg tey dañoo ñëw seet ki nga xam ne moom mooy Jax euh, ñëwoon nañ fi comme ni ñuy wax rek defoon nañ ko daaw fekk déwén dañuy baaxantal jàkk ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay bu baax a baax a baax di di leen bëggee yéen ñëpp comme d'habitude ni nga ko waxee woon ñëwoon ngeen fi daaw peut-être ak daaw jéeg sax ñëwaat fi ren yàlla nañ fi dajawaat déwén ci incha allah. amina ciy topp ñuy ñaanal match Sénégal am na tey yàlla ñu gañe jàmm ak salaam. ngañaay bu am solo daal mais Jax di nga di nga seetaan football. si Sénégal yëpp bëgg football man daanaa football sax bu jëkkoon góol góol laa woon ma nekkee jeune la góol bu ay sax mais basket bi ma mujj nangu. basket moo la mujj nangu. moo mujj nangu ci góol waaw def naa handball góolu handball def góolu football après basket bi moo mujj nangu parce que bi ñu nekkee ñun au lycée UASU si lañ doon détecter talent yi donc j'avais presque quatre disciplines yu ma doon def ma doon def handball def basket. def football defaale athlétisme waaw. macha allah kon dafa mel ni li ci làqu xaw naa bëri waaye eh, fan yii ñu gën la xaw ci la gën laa min ci làmb. làmb moom noonu la rek passion la bu yàgg donc euh, yàlla moo ñu ci àndi rek ñu dem ba ci organiser ay combat waaw am défi ñuy relever nag bugg yooyu yëpp euh, yàlla def ci euh, niñ ko bëggee wala lu raw niñ ko bëggee ba làmb simple mën a dem ci kanam bu baax a baax. le golden boy la ñuy jàpp wala l'homme de grands événements de la lutte simple. ah golden boy moom Abou Ndour la moo créé ay moom xam nga gars yi l'homme des grands événements xaw ma kanati la donc euh, gars yi moom dañuy créer ay slogan rek mais li am solo mooy ñu ngi ci kawam di liggéey donc euh, di bëgg affaire yi jëm kanam bu baax a baax. lamb ji ubbi. Jax ñu gën laa min ci lutte simple. mu ubbee ak doole. doole ji mooy lan. Euh, un million deux millions cinq cent mise yoo xam ne presque daanul am wala bu daan am tam dafa doon raar ana lan moo indi loolu. waaw non xam nga année bu nekk ak contexte bi muy bi muy joxe daal lu simple mooy loo xam ne kenn mënu ko prévoir kenn mënu ko planifier. ñoo daan ubbi ay 500000 ak euh, suñu paa yi nekk Adrien Senghor que je salue au passage ñoo daan ubbi chaque année ak 500000 après nit ñi di yéeg crescendo 1 million et cetera ñi 500000 yi 1 million ba Iba ñëw. mise yi door a plafonné itam ci kaw quoi mais cette année contexte bi moo différent moo moo andi mise yi gaaw a jóg pour mbëri gaaw a génn daal waaw waaw. waa mais Jax ren payi Adrien Senghor ubbi Jax ubbi ñu tombe benn jour nga teg fii benn mise ñu teg fale benn mise. deuxième journée bi ñu tombe wat encore mu gën a jege muy diggante gaal gi Adrien Senghor. bu ñaar ñi di woyandoo sax bu fekkente ne ab déglu am na kenn ku ne da dégg say woyu moroom loolu lan moo koy di waaw mais loolu contexte la rek contexte la ren ren dafa tombé noonu donc euh, yaa ngi ci làmb ji euh, dem nga Adrien Senghor wax nga ak ñoom expliqué nañ la contexte bi ni mu demee donc c'est pas la peine de revenir dessus di di remuer un couteau dans une plaie quoi mm. ce qui est certain c'est que ñoom def nañ li ñuy def wóor na ma tey boo leen wootoon boo leen woowoon ñu am ay regret donc am na yoo xam ne xajul ci biir ci biir benn milieu voilà donc man du ma n'importe qui donc d'abord ci làmb ji ensuite man en tant que personne ba ñu may tuutil bu ñu tuut bu ñu ma tuutilee ñoom ñooy tuuti man du ma tuuti parce que nekk naa li may nekk ba pare donc loolu la quoi au delà de làmb ji li ma nekk doon naa ko yàlla moo ko def mais ci biir làmb ji aussi liñ ci liggéey ci 4 ans yi jiwu ci cinquième année ñëpp rafetloo nañ ko ndax làmb simple bi ma fiy ñëw fi mu toll woon ak tey fi mu toll bu ma dul l'élément pion tamit nekk naa ci ñi nga xam ne ñoo tax mu yéeg fi mu yéeg donc kooku dañ koy sant borom bi sant ko aussi ñëpp ñu ñuy jàppale parce que du man kenn équipe la ko donc loolu moo andi contexte boobu le fait que ñu ñëw choisir ay nit joxleen ay dates donc xam nañ saison bi c'est assez limité c'est 31 dates donc en en premier le le mardi ils ont appelé les gens jox leen 17 dates. ñëwaat le samedi waat yeneen personne man woowuñu ma donc ça c' pas bien. woowuñu la ba ñuy joxe joxe date yi en premier lieu. mosuñu ma woo premièrement bi mardi woo nañ ñi leen neex nañ leen ameloon date te man ameloon nañu ma date ameloon nañ ma date dernier euh, 31 juillet maa ko jëloon bëggoon ci def drapeau Ngor Sémou Diouf donc il nous a dit que ñu préféré xaar déwén pour ñu def drapeau bi. donc euh, ñu ne amul problème parce que comme tëggoon nañ le 26 ou le 24 je bi. Iba Mar mën a duut ñaan bon nañ ko reporté ba déwén donc bi ñuy ñëwee ren bi ñuy woo nit ñi ñi xam ne amee nañ leen date mënoon nañ ñu woo mais woowuñu ñu ñu joxe 17 date samedi bi tamit woowaatuñu duut ñaan dégg ko wax ma ko mën a bon comme noonu la demee nañ teel a dem ñu teel a bindu 5 heures du matin lañ fa ñëw taxaw fekk fa benn waaye ak benn ak benn xaritam ñoom ñoo yoroon liste ñoom ñoo doon premier ñu bindu ñu deuxième ainsi de suite nit ñi di ñëw ba le matin à 8 heures ou 9 ne nit ñi fees foofu del ñu ne bon luy manque de respect sax mooy loolu nit ñi fanaan ci buntu arène ñëpp di wut dat nga ñëw 9h 10h taxaw romb nit ñi dugg ci biir def seen réunion 30 minutes ñoom ñett parce que man dama duggoon di tuur ndox romb leen foofu ñuy wax ci ginnaaw fi ñoti fi ñuy animé ma nuyu leen dem tuur ndox génnaat bi ñu paree loolu ba pare ñu ñëw fekk nit ñi toog ñu ne leen non non list bi ngeen def baaxul loolu mooy premier manque de nit yoo xam depuis 5 heures du matin ñu ngi ran kon dafa mel am na problème bu xew ah ñoom ñoo am problème man awma problème de ñoom ñoom moom seen arène seen kër la dafa mel ni sama immeuble bii ma naan dama dama bu bu ma la génnal da ngay génn ñoom ñoom moom seen arène kenn discuté wul loolu ñooy joxe seen ay date kenn discuté wul loolu mais nag day seex day tëdd njaaxaa ndaay la olof wax ñun ñëpp bokk làmb ji man même bu ma tëggul Adrien Senghor il est normal que ma am fa ay dat su may jël Ibamar wala feneen correspondre date yi pour tëj foofu pour dem tëggi feneen souvent noonu laay def donc euh, cette année c'était pas possible ils on choisi des gens qu'ils voulaient jox leen date yi ñu bëgg man bi ma ñëwee ñu wax ay 26 juillet man leen arrêté man du fi nekk le plus grand pour euh, investisseur en argent ci lutte simple ngeen ne ma 26 juillet laay tëgg loolu amul sens bi ma tourné di dem si ma du jànne ma non bul dem taxawal ma taxaw ñuy seet ñoom ba ñu ne gis nañ le 5 janvier dimanche 5 janvier ma ne waaw ok jëlal mu euh, Senghor ne non non non yaa bàyyi woon sa date ñun du ñun ñoo la ko bàyyiloo kon da ngay fayaat beneen cinquante mille nga génne xaalis sama poche compte cinquante mille discuter ma jox ko du ñaan tourné dem sama yoon loolu laa fa am. donc kon janvier am nga fa dal. am naa le 5 janvier. 5 janvier voilà alors que avant le 5 janvier yaa ngi tëgg yeneen dat ñu ne Jax day xeex li nga xam ne moom mooy cosaan bi. am na le premier janvier aussi parce que premier janvier beneen booy moo ko jëloon donc du ñaan ne ko boo ko jëlee date Jax Jax day tëggi 5 millions fenn da ngay perdre sa xaalis mu ne kon delloo leen ma donc noonu la demee voilà. ñu ne da ngay xeex cosaan. waaye xeex cosaan mooy lan ñoom dañuy cosaan lan mooy cosaan. cosaan fu mu sosoo. ñoom fii lañ sosoo Dakar ñoom ñoom ñoo ji wax yëpp fu ñu jógee fan lañ jógee bu nekk yaa ngi jógee ci biir Sénégal voilà kon bu ñu wax waxu cosaan cosaan amul foofu. Adrien Senghor kañ la commencé tëgg est-ce que mat na 40 ans matu ko làmbkaar yaa 40 ans yaa 30 ans la commencé. alors cosaan mooy lu mus loo xam ne fa sosoo làmb sosoowul Adrien Senghor faut se dire la vérité ñoom ñoo tàmmoon di ubbi on leur consent la mais nag bu ñu wax ne ñooy cosaanu làmb du ñu cosaanu làmb làmb dafa bari ay ethnie ethnie bu nekk ak spécificité ñëpp di bëri nag voilà loolu mooy dëgg bi avant Adrien Senghor Fass daaw ñu fa dëgg làmb Émile Badiane ak feneen ak feneen lutte simple ak feneen ak feneen boo demee Casamance dañ fay tëgg làmb boo demee Guinée Bissau dañ fay tëgg làmb yëpp làmb la donc du cosaan ñoom ñoo amoon ubbi amoon habitude ubbi làmb parce que noonu la daan demee cette année ils m'ont pas donné dara j'ai dit bon mois je je m'occupe plus de des histoires d'Adrien Senghor damay wuti fu ma tëggee làmb jeex na tout le mois de li li tax li tax joxuñu la dat man lijjantiw ma loolu. non mais bo munoo ma ne yaa yaa ngi bokk ci ñi njëkk a ñëw ba pare ñu jox ñeneen te yow joxuñu la. 17 boo ko dindee si 31 dat ñaata moo ci des du 14. waaw ah, samedi bi ñu war a joxe 14 date 14 plus 17 égale 31 17 lañ joxe mardi samedi groupe bu nit yi ñëw fa ñu war a joxe 14 date man d'après mes renseignements am na ñu fa am ñetti date ñu fa am ñeenti date foofu ci Adrien Senghor. tudd ko si yeneen tur am na promoteur d'heure boo xam ne sax dañ ko wutal ay date te ñëw fa loolu normal donc mais amul problème man côté boobu du sama problème yàlla du tëj buntu tëj palanteer ñoom moom seen kër lu leen neex lañ fay def loolu man discuter wu ma ko droit de propriété dafa am le droit d'user d'abuser et de disposer de ton produit yaa ko moom loolu tubaab wax donc man discuter wu ma foofu def nañ li ñuy def je prends acte mais foofu rek du stade du la preuve wan leen ko dem naa gaal gi tuub rek jël ko kenn newu fa terrain football bu ñu daan bëree bu yàgg la ba gars yi abandonné ko ma ñëw dekkilaat ko ci kàttanu yàlla. mais Diaks xanaa looloo tax fu ñu teg 1 million yow nga teg 2 millions ba deux million millions 500. non man boo gisee may teg ay 2 millions 500 et 3 millions ki 5 millions man dama am philosophie ci làmb ji man tëgguma làmb pour ay benn catégorie ñëw jël ko dem ñibbi man su may tëgg làmb damay bëgg léger ñëw bokk ci. luur yi bokk ci mais ay luur yu dajeek léger kooku c'est pas bon pour la lutte mën nañ leen sax gaañ parce que léger yi dañu am ay ay mouvement yu gaaw ay mouvement de rotation ci suuf te mun pois bu tegoo sa kaw mën a yàq sa ndigg mën a la gaañ loolu dafa am solo moo tax damay bëgg nit ñi bëri en catégorie moo tax boo seetloo samay mise souvent day dépasser deux millions parce que à Dakar CNG dafa def loi boo xam ne deux millions la benn mise yam benn catégorie boo ko passé 1 franc am na deux catégories loolu boo ko waxee suñu xel yàgg mal dina dem ci kase kase ñu ngi ko jële woon ci drapeau chef de l'état muy mbër moo xam ne bëre woon na fi bëre bu am solo am lu bëri lu mu def ci làmb waaye yàlla dogal mu am blessure toog ci loolu ba tey te boo xoolee na mu daane woon usine doole ñi may seetaan xam nañ li may wax dafay mel ni laal na ci li Jax wax Jax mu mel ni kon danga nga làmb bu baax ah, même avant may tëgg làmb dama daan seetaan làmb depuis ma nekkee xale man sama papa da daan organisé arène arène Joola ñu bari xamuñu loolu man ñaari côté laa dama am lébu bi ak ak saraxule soninke la sama papa soninke la waa Casamance lañ jóge Bakel lañ jógee dem Casamance il était passionné de lutte boo laajee Double Less tey kuy Siré Jaxate xam na ko xam na ko bu baax ak ancien mbër yi nga xam ne ñoo nekkoon Fass xam nañ ko parce qu'il était très très actif ci affaire Émile Badiane voilà donc loolu la quoi mais man en tant que tel ça n'a rien à mon père a fait ça son temps Souley Ndoye sama maam la sama maam la bi leen falang téwee fii Ndakaaru su lay ndooy lañ jële mbuur fekk mool la woon foofu suñu maam yi dem jëli ko andi ko pour mu daan falang mu ñëw daan falang donc je suis un peu dans la lutte mais ça n'a rien à voir avec ma passion sama passion ça n'a rien à parce que mon père a organisé quelques combats parce que sama grand-père maternel il était lutteur, sa n'a rien à voir avec ça. C'est une passion personnelle. Moi, j'ai la lutte, j'aime la lutte, surtout la lutte simple. Et, et surtout la lutte de connotant séeréer. parce que lutte simple am na joolaa am na pulaar am na loolu mais bu séeréer bi ak animation bi ak yooyu boobu moom a gën a dugg voilà. 2 millions 500 2 millions 500 ñu ngi dégg ci weewu béy ne yaa ngi bëgg a yóbbu lutte avec frappe bi euh, lutte simple bi ngeen baal ma autant pour moi ci yenn millions yoo xam ne kenn xalaatu ko ndax mën nga ñoo yeggal ci loolu. waaw non xam nga pour man amul limite pour man li manqué ci lutte simple mooy jàppale comprendre nga li manqué li manqué ci lutte simple mooy jàppale bi bu ñu amee jàppale les mises peuvent monter jusqu'à x xaalis. pour man amul limite jàppale rek moo si des on a la chance d'avoir une arène nationale boo xam ne ñi ko concevoir xamuñu ne lutte simple lañ liggéey liggéey lu ñu lutte avec frappe man bi ma fa ñëwee keroog tëgg fa làmb laa xam ne fii mooy place bi. dans ce cas c'est l'architecte qui parle. waaw bien sûr bien sûr c'est mon métier. waaw boo xoolee arène nationale ak defarin ba mais boo ñëwee gaal gi côté sécurité. côté ci suuf aussi nga xam ne dañoo ne gaal gi dafa bari xeer mbër yi dañuy bu ñu daanoo ak bu ñu daanee yëpp ci yam oom yi duñ ko fekke euh, toogaay beeg ñoomin seen ku fa gaañu ñu xam nga ay xoos-xoosu lay doon non kenn gaañuwu fa waaw kenn kenn gaañuwul waaye bari ñu xoosu ci xeer yi néew néew néew néew balaa gars yi di ñëw man j'ai acheté des sacs ñu ñëw na leen tame leen xeer bu fa ne mu dañ xeer bi ñu doon bëree xeer desatu foon honnêtement et j'ai insisté ci loolu parce que bëgguma ay nit ñëw fa daanu mu am chute nga dal ci xeer mu àndi la dara bëgguma nit ñëw sama làmb jënd fa ak boobu loolu moom c'est catégorique te bu ñu fay delluwaat dinañ fa delloo neneen comme nan comme nan première fois ñuy organiser bi yoon on amènera du sable de dune on délimitera l'enceinte yokk géew bi yokk sécurité bi yokk tribune yi dina nekk beneen gala bu soobee yàlla waaw euh, maanaam da nga yaatalaat géew gi mais est-ce que dina am ay saako délimitation saako yi comme ni nga xam ne noonu la ñu tàmmee di gis làmb ji. CNG moo war a andi saako boo defee mise bu 2 millions 500 mille fay leen 250 000 francs làmb amul fen kay la moindre des choses mooy ñu jël benn 10 000 francs dem Iba Mar Diop andi saako loolu man du sama rôle ils l'ont pas donc ñoom ñoo fauté man matal naa sama lépp vis-à-vis de 24 bu ñu andiwul saako ma jëndi ay saako marché jël sama camion suuf sol ci saako délimité sama géew. def ko niñ ko war a defee bu soobee yàlla. ñu jógee gaal gi da nga envisager organiser ci biir Sénégal. oui oui Iba Mar Diop malheureusement il est fermé le stade est fermé à partir du 31 décembre mais bon on ira à l'arène nationale on ira à Mbour incha allah peut-être qu'on ira à Fatick aussi à Saint-Louis tout est possible mais dina saf-saf bu soobee yàlla. Mm-hmm. waaw mbër yi xaalis da ngay yokk rek. rek man su man xam nga ba léegi yegoo ci wax man damaa dégg waxu 30 million non 30 million moom yaakaaruma tëgg ko rek xanaa lu ne mën naa ne nag mais maa ngi espérer tëgg 10 millions mais pas 30 million waaw. 10 waaw ci benn fan. waaw 10 ci benn fan. arène nationale kooku day neex ñëppay ñëw waaw suñ ko étudier ni mu waree choisir date bi comme il faut li ci war yëpp ñu def ko. jàppale waale gars yi ci transport beeg yooyu parce que arène bi dafa excentré voilà comme je disais il faut ñu wut ay car même bu dee ñaar wala ñetti njege njaay wala ñeent ñu wax ak ñoom fay leen à partir de 12 heures ñu dem gaare Edegar Oil ku ñëw ñu yóbbu la arène ba ku ñëw ñu yóbbu la arène ba gratuitement bu tasee tamit ñu génnewaat nit ñi ba Edegar Oil loolu laa bëgg a def bu soobee yàlla su ma déggee bu baax mooy cri de bi nga xam ne moom la amateur yu bëri amee woon maanaam bu ñu jógee ci route nationale bi war a dox ba ci arène bi dañu doon am problème pour li leen di transporter di dem di ñëw da nga bëgg a régler loolu dañ koy régler bu soobee yàlla bu ñu patient yi dal rek kat moom bu ne mënuñu ak 50 ça fait 200 personnes par par yaakaar naa ñëpp dinañ mën ñëw parce que ñëpp ñu ñëwandoo dañuy ñëw di wàcc di ñëw oto bu chargé fees dem balaa beneen di fees bu mu dellu siwaat gaare donc bu boobaa Jax moo koy fay mais pas. Eh, bien sûr maa koy fay maa koy fay c'est pour les aider waaw ci lamb. ana lan ngay wax mbokk internet yi lay suivre ci Leewtoo TV te daan xaar sorti bi ci Jax am question yu bëri yi ñuy poser peut-être mënuñoo wax lépp. mais peut-être l'essentiel yu yu saf rek lañ ci mën a génne nii yi des ñu bàyyi kook yow nga wax ak ñoom. waa mais nit ñi c'est des amoureux de la lutte kenn du leen nax donc du affaire xeet ay séeréer ay yooyu non xam nañ li may def ça fait quatre boo duggee ci sit internet yi samay galaa galaa boo gis mu extraordinaire rek Jax ko tëgg bu ñu waxee dëgg rek ngir yàlla si quatre ans yi passé donc les gens ne sont pas aveugles ñëpp xam nañu ñu donc xam nañ galaa Jax boo fu ñëwee dafay neex même bu dee 10 mbër fa nekk day neex keroog lu fa nekkoon 10 ak 12 muy 22 mbër gala bi jox 8 heures et neex ba bëgg dee ñëpp kontaan bi ñu ñëwee day gën a neex rek muy gën a neex rek incha allah. lan mooy secret bu tëggee préparation bi nga gis ko. waaye ci biir làmb ji dootoo ko gis. waaw ku nekk dafa am role bu muy joué si làmb waaw man sama role mooy fexe ba lépp jaar yoon bon après moi man maa ngi ci kees gi di régler affaire jaay yi quoi parce que nit ñi dañuy dafa ñaam flux dañuy ñëw ak doole donc man dama aay mathématique kay calculer xaalis donc man su ma toogee jaay bi dafay gaaw su ma ko bàyyee ñeneen dafay yéex te amer bu ñëwee duñu duñu patient dañu bëgg gaaw a dugg waaw loolu moo tax souvent man damay nekk ci kees yi quoi. non yéexuma jaay bii xam nga dafa lu ne dafa am préalable doo organiser làmb ñëw bugg jiitu sécurité bi loolu mënul nekk parce que booy organiser en fait à Dakar même feneen ci àll bi c'est du sécurité mooy li tax nga mën a ubbi sa stade tant loolu ñëwul du sotti sécurité bi bu ñëwee tamit il faut ñu añ loolu yëpp ci la bokk boo leen ñëw leen 14h wala ñëw leen 13h ñu ñëw 13h añ bi egg si 13 h il faut ñu añ ba pare naan ndox door nag def mise en place nit ñi door a mën a dugg léegi nag bu fekkee vingt cinquante personnes nekk nañ ci biti waaye Jax jaayal Jax da nga yéex na ils sont toujours pressés bu ñu duggee fàtte ko mais loolu dafay am daal donc mais mais on prendra les mesures qu'il faut donc comme euh, comme gaal gi la ñu yore ñu def li ci war gën gën a gën a améliorer li fa nekkoon ba bii galaa di ñëw mu nekk galaa bu gën a neex bu ñu fa jógee tamit bu dee dañuy dem arène nationale foofu amul problème trop organisationnel parce que lépp nga fa donc juste euh, accès bi ngay régler rek def mise boo xam ne mu nekk jour boo xam ne bu ñu ko yàlla defalee day nekk lu extraordinaire donc bu ñu fa jógee peut-être qu'on ira à Mbour ensuite on ira à Fatick peut à Saint-Louis bon peut-être à Ziguinchor aussi après ñu tëj saison bi ñu xaar déwén encore. di ci dóor bi. waaw dóor bi am naa benn combat presque un et demi sax quoi benn ak benn même moitié du deuxième de la deuxième journée. mais bon comme 31 décembre lañ ñu mayoon donc euh, te dóor dafa nekk loo xam ne CNG man dama ko mus a kaas ba man lu may kaas rek dafa am fu mu tegu kaas naa ko ba taay faalew ñu j'ai toujours di que faalew ñu lutte simple dañ koy utiliser rek je l'ai dit devant Alioune Sarr je lui ai parce que duñ ko comptabiliser man bu ñu doon comptabiliser jour yi may tëggee lutte simple man maa ngi leen di pay des chaque année mais sëñ bëre dóor yi rek la ñuy comptabiliser donc sëñ Modou Niang mooy ëppale moo tànn ensuite Sallou Ndiaye et cetera et cetera donc moi j'étais en huitième position boo xoolee mois de décembre euh, cinq dimanche la woon ak le 25 décembre muy sixième journée bi sëñ Modou Niang commencé le 24 muy septième journée man ma ñëw huitième journée man ma ñëw huitième position donc bi may ñëw fekk gars yi jeexal nañ décembre bi te loolu la ñu mayoon donc 25 décembre moo fa desoon ma jël ko malheureusement pour moi bi ma demee stade pour valider ko ñu ne ma directeur stade bi joxe na ko y' a 3 mois waa seen petit gàll xaw ma la ñuy def si seen show su ma demoon gis si Matar ba def leen di dàq ne leen dem leen Demba Diop làmb mooy prioritaire j'en suis certain parce que Matar dafa bëgg làmb te daf ñuy jàppale mais je me dis que nit ku nekk def nañ seen programme ba pare euh, programme nañ ko depuis 3 mois donc duma leen ko yàqal ko voilà donc je vais essayer de trouver nan laay def ba tëgg première journée bi bon même quitte à prendre un un un un vendredi ou même pas parce que du ma tëgg vendredi un mercredi wala yooyu naa ci waxtaan ak Dalak yi organiser combat yi wala ñu seet début janvier nu ñuy def ñu dem arène nationale quoi. mën nañ jël benn date bu gaa yi jël comme le 29 décembre yóbbu ko arène nationale tëgg fa ko waa pour pas. mot de la fin. sant rek di leen sant bu baax di leen gërëm euh, di wax Pape Thialis eh na ñëwaat affaire bi yàlla na ko yàlla jox xaalis bu bari parce que dégg naa combat ba leen doon cuq temps yee combat bu neex la muy Balla Gaye ak waa ji ak euh, Boy Niang 2 euh, yàlla na ko yàlla jox moyen mu ñëw tëgg boobu daal voilà mu def ndànk aussi bu ñëwaatee mu def benn rek comme ni mu bañoon def comme ni mu defoon quoi parce que bu ñëwee ak doole aussi andi xaalis bu bari bon les gens là dugal la si cinquante combats yoo xam ne amul njariñ donc tu jettes ton argent mais boo defee ban benn boo xam ne si étudié Balla Gaye ak waa ji kooku combat bu neex la te day fees del te day neex yàlla na ko yàlla may moyen mu ñëw tëgg loolu yéen tamit di leen féliciter ci liggéey bi leen ñaanal yàlla yàlla yokk leen bu baax a baax a baax ba ba affaire bi gën a yaatu ko voilà et puis yàlla may ñu aussi ñun tamit ay ay ñu ñu jàppale ba ñu mun a egg comme mise yi nga doon wax ay trent millions ay 50 millions man sama objectif mooy def mbappatu 50 millions xaw ma Dakar lay nekk xaw ma États-Unis lay nekk xaw ma feneen mais daal bu ma eggoon foofu daal mën naa bàyyi waaw <laughs> mbokk yi yéen a ko déggandoo Diaks wax na lu mu war a wax yéen a ko déggandoo du man maa ko wax moo ko wax waaye Amine topp ci ñaan yi yàgg maar moo maane équipe Leewtoo ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax waaye di nuyu ñuy seetaan bu baax a baax di jox rendez-vous beneen yoon incha allahu rabi jërë geen jëf